ami internetu Télé Sénégal ñu ngi leen di nuyu tey wax sa xalaat bu spécial doxantu xool gars yi ni ñu toogee euh, li nga xamante ni moom moo di lendemain match Sénégal Angleterre tey ñu doxantu fekk benn waaye boo nga xamante si dañuy kontaan ci moom parce que li tax ñuy kontaan ci moom mooy dañu ñëw fekk ko mu sol maillot Sénégal c'est-à-dire moom défaite bi jàpp na ko jàpp ko en tout cas mu ngi fier ba tey ci dëkkam grand maa ngi lay nuyu. Eh, maa lay fay grand frère. sant yàlla bu baax. alors ginnaaw di lendemain lendemain waaw ah, mais di si sant yàlla rek di encouragé gars yi la amul baay nii la waroon deme c'est le Sénégal ba léegi waaw. tey lan nga gis ne tey moom moo manqué si problème mu coaching la ñu am problème mu coach Aliou Cissé mooy problème ñun Sénégal maa ngi jégalu bu wér nag mais Aliou Cissé mooy suñu problème. waaw mais tey euh, ci joueurs yi aussi am nañ ci par de responsabilité ñu bëri ci période match bi ñu ngi doon ñu ngi doon kaas kii di Crépin Diatta. mais loolu yëpp Aliou Cissé la moo indi Crépin te Crépin warul woon départ Crépin xaar Pape Gueye fi woon Pape Gueye mënoon na dem Crépin xaar waaw. mais tey Sénégal ce que pare woon na cest à bi ñu yore est-ce que pare woon na carrément pour pour pour jànkonteeg euh, kii di Angleterre. grand ñun c'est le amul équipe bu ñuy ragal Angleterre 11 la ñuy 11. barki Serigne Touba 11h ñun ñuy 11 affaire amul bàyyi c'est le Sénégal ñun deretu Sénégal mooy taw si ñun. Angleterre dara 11h ñuy 11 Aliou Cissé bu tegoon ñu mu waroon teg war na yàlla Sénégal mënoon na am dara si kaw Angleterre. billaay walaay mais lépp rek ñun problème coaching la ñu am Aliou Cissé nag mu ngi xotti di dem rek ñun si moom lañ gis entraîneur boo xamante ni musul am 11 titulaire ñu ne la lii mooy équipe nationale ñun ñu ko gis si Aliou Cissé maanaam booy bu bees bu jot rek mu woo ñëw affaire du foofu voilà day turne rek day taxale nii di dem rek. dañ dañ dañ ko laaloon mystiquement quoi. moo tax ah, du mën a moom li mu moom kenn xamul lan la moom. ndax yow mën nañ la deux deux zéro yow looy tiit waroo tiit bul yow continuer sa football mais mi nga tas nga génnee trois joueurs génne leen indi ay ñetti booy nga ne yow ñetti booy nga yaakaar te ñetti booy mosoo am yaakaar si ñoom ba di leen départ loo waaw ah, métti na lool métti na lool surtout quoi parce que amoon na ambiance neexoon na dëkk bi yëngatu na surtout loolu waaw. selon yéen lan moo manqué à cette équipe sénégalaise boo tax euh, mënut mënut jaamarloo ak kii di kii di Angleterre. non à mon avis euh, c'est le manquement de Sadio Mané man laa sentir que ni euh, moom moo moo doxul démb. Mhm. parce que démb dañ manqué kuy jël bal di permettre di dugg si face. Mhm. di créer occasion léeg loolu lañ manqué. waaw mu mel ci dernière minute minute c'est parce que pour man changement yi changement yi ni ñu ko doxalee du noonu waaw amoon na avis euh, dañuy mi benn changement la ñuy def Pape Gueye Crépin euh, génne Ilimane si excentré beneen bi génne euh, kii Ismaïla beneen bi bàyyi Boulaye mu pointé wu. parce que tamit nga génnee nga dugal dugal Bamba bu Boulaye ja dem excentré du ñu apporter dara parce que parce que parce que du homme de couloir pointé la mënul daw Bamba mbajee la même chose te Bamba Dieng petite taille la. boo ko dugalee dugal ko si pointe bi foofu mënatuñu am sens. duñ bëri di sens man dañuy maintien noonu ba côté ay côté 70 75 nga mën a nag génn simmi ko foofu noonu soit dañuy dugal 2 pour mën a ay vers 80 85 ñu jéem a xool lu ñu égaliser soit ñu jël troisième bi. à mon avis quoi pour man changement précipité de trop. kon bokk na ci li xamante ni. waaw oui non bokk na ci bokk na ci. parce que tandis que d'autres parce que équipe bi dañoo jël yëpp. si ay traditionnel lay doon ay ay 43e minute ay 2 minutes nga dem mi-temps démb bi ñu jël waruñu ko jël parce que 2 minutes moo des si nga dem mi kon da ngay dem ak mi-temps bi 0-0 da ngay temporiser te occasion yi ñu am dañ ko war di dugal waaw dañ ko war a dugal parce que bu action bu laa jaboo bu duggoon match bi day doon beneen match waaw day doon 50-50 mais n'empêche que fii la yàlla dogal ñu waroon fi yem waaw dañ koy sante suñu boroom koo euh, waaw ni ñu ngi lay ziar bu baax a baax euh, ñu ngi doon jaay moyens yi euh, dem ba xam na fi mu nii moom euh, perte nañu lu bëree bëree bëri ndax am na ñoo xamante ne nii tey euh, jëndoon nañ ay millions def ko ci investir ko ci teg ko tey ñu ñàkk ci defet ñu am ci defet boo xamante ne nii tey affaire bu garaaw la man dama doon jaay mayo te gis naa ne maa ngi si doon gis sama bopp boobu noonu. ñu ngi si doon gis seen bopp auditeurs ñu ngi si doon gis suñu bopp. Mm. parce que dafa mel ni Sénégal lu muy gën di avancé jaaykatu mayo yi di gën a gis seen di gën a gis seen bopp ci euh, ci ci liggéey bi. waaw ñu ngi si doon gis suñu bopp bu baax a baax euh, parce que boobu noonu ñu ngi doon ñëw di jënd mayo yi parce que chaque saa bu ñu amee victoire dañuy gën a am force pour ñëw jënd jënd mayo yi mais dem nañ ba xam ne nag carrément fi mu nii. dafa sës fi mu toll nii bi ñu ñàkkee gars yi xamatuñu fi mu toll nii la ñuy def fi mu nii ak na la ñuy def ak maillot yi. c'est quoi tey noonu lañ mën a def nag pour pour pour écouler stock bi nga xamante ni moom la gars jël parce que du fi mu toll nii moom affaire bi grave la nekk na lu difficile fi mu toll nii. pexe jeex na fi mu toll nii. tey tey tey gisuñu maillot yi. non maillot non mais moom bu ñu ko gagné moom moyen boo ko dem jaayee seen franc léegi. dina fay lu téeméer wala 1000 francs mu jéem a na takk ko ba beneen yoon moo gën parce que moom te gars yi mënoo supporter défaite ñoom victoire rek nay gars yi ne Sénégal di gagné mooy di gën a augmenté gën a cher bu mooy bu ñu dooree Sénégal mooy moom kii naa duñ ko bëggati moom. ñu bëri nee nañ ci stock yi jotoon jënd jël seen xaalis lépp dépensé ko ci affaire yi dafay mujjee retourner à zéro. à zéro la perte fi mu toll nii jaay mboye sans gagne sans perte la carte la rek da ngay gagné équipe bi da ngay am xaalis bu équipe day perte da ngay perte waaw risque la quoi boo investir bu équipe moom da ngay sa xaalis di gën a doublé quoi. bu la gañee nag moom da ngay fay parfaitement moom. kon instant yii ngeen nar a def ak uh, uh, somme bi ngeen dugal ci maillot waaw mooy bi dana ngay mujj takk mbaa dem wanteer ko jaay ko perte parce doo gis client boo ko jaay parce que client benn client bëggatu ko. waaw pertement quoi boo xam ne nag xool la ngay jaay dem ak bekk dem boo xoolee foofu doo perte quoi lii nii day doon sa bénéfice boo xam ne yaa amul problème mën na ko stocké takk ko wala wanteer ko woon. maa lay delloo kontaan jaayëf tamit des fois da ngeen di da di bu Sénégal avancé maillot da ngeen ko jël yokk ko lu doon jar deux mille cinq bi ko jaayee lu doon jar dix mille quinze bi ko jaayee mais loolu pour lan non lool xam nga bi moo ko laaj quoi moo ko laaj parce que tey euh, kenn ku nekk ak maillot bi nga choix parce que ay qualité la maillot yi dafa nekk ay qualité yow kenn ku ne yow yaa ñëw xool qualité bi nga bëgg nga ne qualité bii laa bëgg après ñu ne la bii la lay temps la lay jar waaw mais du comme ñun ñoo yokk maye ci comme suñu cooba rek comme ça maye qualité bi la ñuy xool après jaay la ko. mais ça bi ça sera même pour pour pour écouler li nga xam ne non loolu moom sax fi mu toll nii moom affaire bi compliqué lay fi mu toll nii xanaa. da ngeen ci gën. moom perte lañ gën a taxawal moom fi mu toll nii moom moment bi moom perte lañ gën a taxaw. waa joueurs yi moom xëy na def nañ seen devoir li ñu war a def def nañ ko euh, li ñu war a def daal yëpp def nañ ko di leen ñaanal euh, Coupe de afrique bi ñuy jëm ñu gën ci góor góorgóorluwaat rek yàlla mayaat ñu ci beneen ndam loolu lañ leen di wax euh, di wax Aliou Cissé ne ko no décourage waaw no décourage affaire bi moom na moo demee noonu kuy dem si terrain bi ku ne tey nga gañ suba ñu gañ la noonu la demee noonu la demee waaw. mais ñu ngi lay jaajëfal kon. waaw ñu ngi lay delloo jaajëf maye doo ma ci jox ñaar ma yóbbu. maye <laughs> maye ñu ngi toog xoolal ñu ngi toog fi lan la ñuy def fi mu parce que waaw waaw mënoo ko génnee fi mu toll xamoo nooy def ak moom. dañ ko teg toog gis nga fi ma toog nii. Ah, dama ñëw sama benn xarit tey toog foofu noonu. yàlla baax na du yàqu mën ngeen ko dencaat ba ba ba <laughs> am na loo xamante ne moom. il faut day xaar parce que tamit nga jël ay millions tamit def ko si mënoo mënoo ko pasar pasare mënoo ko génnewaat tamit si terrain bi da ngay perte quoi da ngay perte bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal waaw surtout loolu kon ñu ngi waaw ah, jaajëf ay ay joueur man point la attaquant point. ak yow. waaw ah, moi axe central laay joué. ak numéro 6 waaw surtout loolu. tel n'est pas le tel n'est pas le cas xam nga rek waaw waaw bëgg a mel ni suñuy moroom rek. waaw waaw waaw waaw rek. kenn dara mm-hmm. que Angleterre moo ñu éliminé. tey jii ab Burkina ab ab éliminé ñu Angleterre moo ñu éliminé. waaw waaw am te bu ngeen seetloo sax bu ngeen seetloo sax euh, euh, yàggul même pas huit mois lañ ko éliminé final coupe euh, coupe d'Europe kon kon Angleterre équipe bu ndaw en plus que xam nga nañ waaw nañ nañ nañ tamit jàppaat defaraat xam nga équipe bi bëri nay jeunesse te xale kese la suñ gënee defarwaat indiwaat tuuti renforcement yaakaar naa incha allah dina baax waaw. gis mu dem mu dem final ban équipe ak ban ah, man moom man moom man moom man moom pour dire vrai sama sama sama sama philo moom mooy Brésil. Angleterre final. non man France laa gis France. France France laa gis quoi man France laa gis même tamit aussitôt Brésil mais France la gën a gis quoi man sama position quoi. waaw pourquoi pas France supporter Angleterre maa ngi leen di fay. Mhm. donc man la Ousmane. Mhm. waaw mais ginnaaw bi ñu sant yàlla aussi tamit donc. Mhm. Euh, liñ ci bëggoon du dara c'est pour mm. juste rek ay sénégalais lañ donc. Euh, mm-hmm. xol lañ doon waxee ak. Mm-hmm. bëgg giñ bëgg suñu réew. Mm-hmm. mais defu defuñu ko pour xaste wala. wala wala insulté wala ñaa ñi kenn. c'est parce que dañu bëgg rek mu baax quoi. xëñ na nag souvent suñu xol moo ñuy poussé ñu waxee dara. donc euh, mais insulté bi nag ñu ngi ciy jégalu bu baax. mu nekk vidéo boo xamante ni peut-être du woon sax ci match bi nga ko wax ah, mu nekkoon match boo xamante ni peut-être début début bi la woon. waaw waaw waaw deuxième match bi la woon. presque mhm. euh, une semaine avant. Mhm. waaw mais peut-être tey la am sens moo tax mhm. ñu reprendre ko. selon ñun dafay loolu dafay firndeel juste colère u euh, Sénégal yi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi am mer bu ñu denc bëgg ko wax mënuñu ko wax yow nga jël ko waxal leen ko. waaw parce que àdduna aussi tamit noonu la. souvent am na ci ñoo xamante dañuy xam noppi am ñoo xamante ne dañuy xam wax. Mm-hmm. et tamit sunu tamit ñi nga xamante ne ñoo ëpp possibilité pour mën a wax. Mm-hmm. ñooñu ñoo mën a wax. Mm-hmm. Euh, mais affaire bi tamit aussi tamit ba léegi li ciy des mooy. il fallait ko aussi tamit. suñu borom daf ñu jàngalaat àdduna. jàngalaat ñu diggante nit ak ak ak boromam. chaque suñu borom tey jàpp naa ne match bii Mm-hmm. dafa marqué waat place am. Mm-hmm. xam leen ne leen carrément moom mu ngi existé ba léegi. Mm-hmm. peut-être suñ bàyyi woon mu jàll. donc dina nekk loo xamante ne. Sénégal aussi tamit. yàlla pour mu amaat fii crédibilité am du du yomb noonu. à 100 pour man je me dis que ni sax la faute du du du yi mais c'est surtout sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di ñoom ñoo leen di forcer à ce que ñu wax parce que ci veillu match bi seetaan nañu émission bu bi Ngoné ñu ngi koy nuyuwaale. mais gars yi ñoo doon woote di di di demander carrément à que. nit ki wax ci match bi est-ce que nekkul gars yi defaa fois tam ñoom ñoom ñoom sénégalais ñoo war a delloo siwaat seen xel et puis bàyyi seen xel mi ñuy fawee surtout. waa xam nga aussi tamit sénégalais mara yu ci bëri peut-être man dama leen considéré comme ay businessman. Mhm. donc dañuy jéem a jaay seen seen. seen produit marketing la quoi seen la ñuy def. Mhm. en plus ci biir marketing bi ñoom mara yi dafa am benn. Euh, maa ngi koy considéré comme genre lobby bu nekk ci seen biir. Mhm. maanaam association la donc ku ci nekk aussi tamit da ngay jéem a fexe. am seen nit bopp yoo xam ne boo toogee ci eh. am seen nit bopp yoo xamante ne dañuy jël seen crédit donc di eh. ci woote eh. mais nekkul sénégalais lambda bi nga xamante ne Sénégal dëgg dëgg dëgg moo ko ñor moom mooy woote man gëwma loolu donc peut-être nag donc lii dina leen yar bu baax mm-hmm. aussi tamit mm-hmm. sanction yi aussi tamit mm-hmm. soxla naa ko trop ndax dëgg tamit waaw ñu bëri ñu ngi insister ci loolu ah <laughs> mais mais dina xaw a doy waar tey lu fekkee ñu nar a ñu nar a sanctionné Mara yi. non du doy waar c'est parce que dëkk tamit dañ ko yar. Mhm. tey li ngay gis nga affaire bi du du du du du Sénégal du mhm. man du yow du kii. Mhm. affaire bi couleur Sénégal bi la kon donc suñu demee ba couleur Sénégal. nit waroo trahir sa peuple. le fait que benn Mara génn nit. fay na ma pour ma yàqal équipe. man mhm. considéré wu ma équipe bi dama considéré ne drapeau seen kooku dafay trahir peuple am mhm. te ku ne xam ne ne trahison sa peuple ku ne mhm. xam ne ne lii la ci mën a fekk mais tey nit bu demee ba am fitu am courage taxaw génn naan niw fay na ma pour ma yàqal lan moo ma leer na moom yàqut ba pare sax soo a génn di wax dafa war am ay preuve yu leer alors su ko leeroon ne aussi tamit boo génnee wax lii dinañ ko woo ne ko kaay kan moo wax lii ñu jëli ki ko wax ak kiñ ko wax teg leen ay sanction bu subaa boo déggee Mara woo ko téléphone ne ko maa ngi ñëw sa kër sa danaa la néew day daw danaa la néew ma fi donc il faut aussi tamit ñu a xoolaat suñu bopp mhm. yaraat suñu bopp mhm. mais sénégalais moo dem ba gëm sëriñ mhm. ñu gëm sëriñ te nit aussi tamit li nga bëgg rek ci lañ lay naxee gis nga te euh, sëriñ si dem nañ ba benn instant dañuy manqué de euh, concentration sax jour yi ñëpp mënuñu yem nit suy dem di ñàkkante nga mhm. dem ne ko demal lépp baax na mhm. su demee da koy gën a yokk jom góor mhm. góorgóorlu ndax day jàpp ne mara bi nee na ko lépp normal na lépp baax na waaw loolu lay jàpp mais soo ko gëmlooy ne ko demal yaag say morom yéen a fa nekk hmm. da ngaa war a ñafe li nga bëgg moom lañ bëgg da koy gën a gëm da ngay dem nga kii ndax hmm. aussi tamit yàlla dëkkul Sénégal de hmm. yàlla du sénégalais de yàlla mu ngi fépp waaw parce que bu doon lool la ñu bëri ñu ngi naan am na équipe yoo xamante ni côté mystique ñoom ñoo gën a tàng Sénégal foofu bu doon loolu la kon di nga gis équipe africaine yooyu noonu ñu dem non aussi tamit a xam ne aussi tamit Afrique fu mu dem am na fa jabar am fa ay doom bëri na Angleterre am na ay africain ku dugal deuxième bii ba xam troisième bii bi mhm. africain la mhm. d'origine africain la mhm. mais kooku dafa am ay réalité dëkkam pourquoi pas moom moom moom moom moom munu dem dëkkam li Sénégal bu dee ci affaire de mystique la am na dëkkam pourquoi pas moom munu jël coach yóbbu ko dëkkam ñu ñaan ngir waaw gis nañ fi gis nañ fi Zidane ak ay ak ay ak ay bopp ginaar de voilà c'est <laughs> Sénégal dañu dem ba gëm euh. wax ju bari mm-hmm. gis nga ni Afrique euh, France dàqee wax ci Europe bi mm-hmm. Sénégal moo fi dàqa wax ci Afrique bi <laughs> wax rek wax rek lañ fi nekkee mais lii dëgg ba dëgg <laughs> eh. mais nag lii sant yàlla la sant yàlla uh-huh. ñu dellowaat suñu xel ci yàlla mm-hmm. gën a defaraat joueurs yi nag démb liñ manqué bari na lool manque de concentration football bi ku ne xam ne ne baaxul bi su ñàkk nag boo amee da ñàkk mais nit booy ñàkk tamit da nga war a ñàkk ci jom. ak mhm. ñàkk ci fubal. Mhm. ñu xam ne def nga li nga war a def yëpp. Mhm. mais tey da nga war a ñàkk ñàkk nga. mais ñu fubal la mën la duma la ñibbi si waat. loolu tamit mooy loolu Aliou Cissé nag. ñoo ngay ñaanal aussi tamit sant yàlla ndax moom. bu dul dara xale yi juddu 2000 yëpp. ku ci xam may Sénégal ba yuuxu Aliou Cissé la. ndax ña ko fekkee woon. ba deux mille vingt deux. Mhm. donc Aliou moo leen jox. ñu bëgg Sénégal amuñu amuñu amuñu seen équipe mhm. Mhm. ndax ki nga xamante ne tamit man pour man. coach su donc résultat lañ lay laaj. te Aliou mu ngi def résultat. koo xamante ne yi nga yore équipe nationale ba léegi. équipe bi nii lay def. lépp la fi indi. coupe bi monde la waroon a ñëw. te ku ne xam ne ne Sénégal aussi tamit. ak euh, Angleterre. Angleterre. Mhm. lii du surprise. ku xam anglais yi xam Sénégal lii du surprise. parce que gars yi ñu bëri seen seen seen xel doon na ci tey. waa mais c'est que gëm-gëm moo foor rek xam nga mhm. tamit mhm. Euh, ñu bari gëm seen réew. ak gëm seen drapeau réew moo tax ñuy wax naan non. Angleterre Sénégal mën na ko dóor mais ku ne xam na ne. Angleterre ak Sadio Mané rek. Mhm. du yomb waxuma la ak Angleterre ak sans Sadio Mané <laughs> loolu tamit c'est c'est un peu difficile. dëggantaan waaw te tey joueur Afrique buy football ñaan nga yàlla. Mhm. football Angleterre. Mhm. donc ñoom ñoo yor football bi. ñoo yor moyens ñoo yor lépp. Ah, Angleterre dañ laa ëpp ci lépp. ñoo la ëpp joueurs yi mag ëpp la expérience ëpp la moyen. li leen football jaral jaralu ko. gis nga tubaab mën na jël salaire tey supposons tey mën na jël salaire am propre salaire am. def ko ci équipe nationale bi wala mu def ko ci kulóolu réewam. Mhm. Hmm? Mhm. Euh, pour mhm. nation yam mais Sénégal xamul loolu. Sénégal xamul loolu tey am na si ñoo xamante ne. Sénégalais yi xam na am na ñoo xamante ne tey mayo bu 1500 jarul leen ko. du question da leen ko jaralu dama jàpp ne dañoo xamul. lan mooy seen couleur nation. dëggantaan mais jàpp naa ne suñ ko xamoon. donc am na ci yoo xamante ne. Mhm. donc euh, dinañ ci gën a taxaw dinañ ci gën a taxaw. mais ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal. waaw amaat mbégte teewaat ci yow. waaw kontaan ci yow. ñu lu ñu bëri lu ñu bëri xamul nag nit la ko xamante si nii nit ku yaatu la nit ku baax la parce que euh, compétition moo demee noonu ah, ku ci nekk xol ngay waxee xaal ngay waxee. Mhm. ku ci nekk euh, yéene bi nga am ci équipe bi mooy tey. mu yëkkati coupe du monde. parce que tamit mbégte la ci ñëpp. te loo xamante ni mosoo ko dund donc day neex lool nga am ko donte benn yoon la ci at bi donte benn yoon la ci sa giir dund parce que kenn xamul sa ëllëg. ñuy delluwaat di ko jaajëfal bu baaxa a baax a baax di wax ni tamit aussi vidéo bi seen vidéo ki data vidéo bu xaw a yàgg la donc euh, li neexoon gars yi mooy peut-être li ñu doon ñurum ñurumee di ko wax ci suuf moom la tey moom jël dis ko wax ko ci kaw. et puis euh, euh, euh, duñ ko ci condamné ah parce que kenn ku nekk xol ngay waxee comme ni ma ko waxee di ko jaajëfalaat bu baax di la wax. Ah, kontaan nañ. waaw kontaan naa. Mm-hmm. Mm-hmm. aussi tamit comme ni nga kontaanee. Mm-hmm. aussi tamit di remercier sénégalais di leen encourager. donc di leen masawu. liñ bokk ñun ñëpp. aussi tamit compétition la dañ daan gagné ñu daan gagné aussi tamit. ay nit lañ. ay ay ay dañoo yor seen couleur nation tamit dañoo muñ. nañ jàpp ne aussi tamit sénégalais yi la. ñuy sant yàlla léegi nag di leen woo tamit. di leen jox mhm. rendez-vous aussi tamit. Mhm. ngeen suivre seen site. Mhm. donc topp ñu. waaw parce que am na am na am na yu bëri yu fi waaja waaw ñuy waaja dina gën a dina gën a neex dina gën a rafet te luñ fi wax tamit aussi tamit. donc bu jubee ngeen xam ne ci yàlla bu buñ juumee ngeen xam ne aussi tamit ñu lañ dañoo matul bëgg mu baax rek dëggantaan leen jox rendez-vous aussi tamit mooy loolu dëggantaan ngeen suivre ñu jaajëf ñu ngi ñëwaat day gën a neex jaajëf merci beaucoup ñu ngeen di jaajëf lu baax li moo nekkoon tey euh, wax sa xalaat génn waxtaan ak gars yi doxantu ci mbedd mi gis jël seen gis-gis ci li nga xamante ni noonu la ñuy dundee défaite bi noonu la ñuy dundee surtout li nga xamante ni moom moo di compétition bi. di gërëm suñu gaynde yu baax parce que bu dee benn bés ñaari bés ba ñetti bés kontaan nañ ñu ko dawloo nañ ñu ko yuuxuloo nañ ñu ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ni euh, lii ñëwee dàq yàlla buy defar day mel ni yàq kontaan ci yéen kontaan ci binet bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci ginnaaw caméra bi boobu di métti mais mu mais mu géré ko kontaan ci ouz suñu xarit suñu doom ndey kontaan ci képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel chaîne bi den wax ni resté scotché quand c'est important c'est sur la Télé Sénégal jaajëf <laughs>